salaamaaleykum maa ngi jëloon ziar bu baax a baax ah waaw loolu la kon tawfeex la ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu bi donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla. sëñ Fall bil xayri wal mafaazi alhamdulillahi équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo.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 ci itam yi nga xam ne xew na ci montagne sainte muy marale gi ñu ko marale woon ak garab gi doon ko jéem a fetal te yàlla sottalu ko loola tolloo woon ak bisub talaata ba mu bind ci wax ne wahaba lil wahabu fi salaasa maa la al asrata wa salaasa yàlla mi nga xam ne mooy mayaakoon bi may na ma ci bisu talaata loo xam ne day gàcceel fukki officier yooyu ak ñett nga xam ne ñoo ko doon maanaam fukki yeeg ñaar ñoo ko doon jéem a fetal ak seen kilifa gi nga xam ne moo leen fukkeel ak ñett euh, ci xasid ak waqaan yi xafiidun gi nga xam ne sax am na lenn ci gëstukat yi ñu jàpp ni fii fi Libreville la ko defee ma nga cay junjaat lu mel noonu di wax ne ajaarani al qahaaru min jumlati al ida wa xaanathum wa armaahuhum yàlla mi ki nga xam ne mooy kii not am yàlla mooy maanaam notaakon bi moo ma musal ci mboolem noonu yëpp ñoom ñooñu nga xam ne seen xeej ya ak seen kanu ya da leen a wor da leen wor waxaat na ko ci xasid ak rum naa sukuur allazi bil kaafi wa nuuni wax ne najawtu min fitanil aadaai id qasaduuni bil madafia turran wa sakaakin mucc naa ci fitnay noonu yi te waxtu woowu ñu ngi jóg jëm ci man yor seeni fetal yu ànd ak eh, ay ay maanaam ay paaka loolu lu xaw a mel ne paaka wala loo xam dafa am dégg nga ay ñëw ka eh, ba noppi boole ci ay kano itam nag day tudd ay kano muy kon arme lourde boo xam ne tubaab bi doon na ko jëfandikoo ngir sëriñ bi loolu kon di firndeel ne fitne yooyu daj na ko fii ba ci yeer moomu nga xam ne dañ ko koo gasaloon taal ci sawara fii la fii lañ wax ne fi la xewe woon ci Libreville ba yàlla musal ko ci yooyu di ay xew-xew yoo xam ne xewe na fi waaye mu nekk fi nag diir boo xam ne yàggut bu yàlla dogal li mu fi war a am mat euh, ñu war ko fee jëlee nag yóbbu ko ci ñaareelu dëkk bi nga xam ne fa la gën a yàgg nag te mooy ba foofa nag fa la am juróomi at te li firndeel ne ba lañ ko yóbbu bi mu jógee Libreville loolu bind na ko ci anam yu wuute danaa tudd rek wenn bayit boo xam ne bokk la sax yi ne ci ayesa waaye fi mu waxee ne tababu man naqli li bafalin la daa taxawuli qaidatun ila bala'in azala bi izni baaqin li yaqaada munzala fekk boobu day wax ne eh, day wax mujjug noonu yi nga xam ne ñoo ko génne woon andi ci réew mi fi leen yàlla mujjale ci alkande ba ba mu agsi ci ki nga xam ne moo nekkoon ci booba jamono fii fi Libreville te mooy kii méngoo signature bi ko yóbbu Mayumba mu ne kooku alkandeem jooju nga alkande kooku nga xam ne moo signé moo jonjoo sama tuxu jógee Libreville dem Bafali Bafali mooy Mayumba rek xeet waa tudd noonu mu wax ne euh, ñoo foofa ki nga xam ne moom moo def loola kooku day yàlla dana ko al alkane joo xam ne moo koy wommat ba yóbbu ko ci balaa boo xam ne moo ko ber ci kàttanu yàlla mi nga xam ne moom moo moo wommatal alquranam Mayumba nag fa la sëñ bi gën a yàgg dem na fa def na fa juróomi at yu mat sëkk yoo xam ne nee na ci laa mujj mel ne ab jant. نفى عني العداء وساق المنى لي والجناب حقير li nu fi andi nag lu am solo ak ñaan ak xeñtu ngir fàttaliku ak soññiku ngir man ca gën a jariñu rek moo nu ndax xam ngeen ne yoonu Gabon ci Sëñ Tuubaa moom day lu am solo ci yoonu murit di lu am solo ci sëriñ bi ndax sëriñ bi bi muy jóg di ñëw fii ci Gabon tubaab bi di ko fi indi booba ñamu bàyyi Sénégal moom ak mboolem koo xam defe nga ne moom sëriñ bi fu war a yegg yegg na fa da waxal na ko boppam itam dolli gu fi ak xam yàlla dolli gu fi gën a fonk jaamu yàlla dolli gu fi gën a nangoo jaamu yàlla yooyu yëpp dolli koo koo fi kon booba ñamu ña woon ak jamono di ko xool ñoom gisuñu luñu lu mu manqué loo xam ne war na koo mën a dolli ko te dégg ngeen qissa bu ñuy wax ne sallallahu alayhi wa dafa ñëw seet ko ca xalwatu ba te wax ko ne ko yëg ñeent fukki guddi war ngaa nekk xut bu samaan te mën na maa fexe yow ba nga nekk ko tey jii tey tey tey sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne lii kat nga bëgg mbooloo mas na koo bëgg waaye day def saa soo xamante ne soobu nañ ko ak yàqule sax léeg mu fekk leen ci ndax charte yi dafa diis dafa bari te dafa metti mu ne ko dey charte yi nga xam ne moo koy taxa doon duma wax ne mën naa ko duma wax ne danaa ko def waaye mu fekkee lu fi jële nit la boo fi suñ boom jëlee ma xam ne moom fi jële jëmm ji moom sama yoon nekku ci moo ko moom waaye bu fekkee joom rekk la ak fulla suñ boobu may na ma ko te dinaa ko ci def kon boobu kon dinaa ko am yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam koy tegtal yoon wa wax ko yoon wi nga xam ne ci la jaar mu yoon wu lëndëm mu metti mu jafe ndax te yoon woowee la ko jëkk xamal mooy dëkk bi moom da nga koy génn fi saas ndax làkk nga ko ci làkku Tuubaa làkk boo xam ne dara mënatoo jóge ci àll ba ñëw di la fekk di la lor wala mu di la nattu kon na nga génn dëkk bi ba mu génnee dëkk bi ci gannaaw bu xalwatu ba jeexee ba mu woor ba mu ba mu wari ba noppi mu génn mu génnee dem Jolof sanc Mbàkke Baari foofee ba mu fa toogee tuuti la sang bi ñu ko doon wax ne di jaayam di sëriñ Bousso bi génn àdduna mu dellu si jaale si ko Mbàkke Bawal delluwaat Jolof moom demee Jolof la mbir bi tàkk kalaame yi bari sos yi bari taqal yi bari metti lool ci lañ ko wooye bi mu yàlla dogalee mu dem ñu àtte ko ba dañ koy indi Gabon bi mu ñëwee dem maayom ba def fa juróomi atam yooyu mu fa def nee na mujj naa mel ne jant bu fekkoon te weer laa mujj naa neb jant bu fekkoon te ne ku fa ku doon wut yàlla la am naa ko ba mu doy la nga xam ne moo ko na gàllankoor lépp ñu defee ne moom moo di gàllankoor moom jàppe woon ab gàllankoor waaye ab liggéey la ko jàppe woon moo taxoon bu ñëw fi ñam tàggu it maa ngi dem liggéey li yàlla te ñëw leen wax te booba ñu ngi koy tinu ñi di ko yërëm di ko ñaanal d'appel mbaa nangam waaye fii nag ñu ñëwee ci Libreville muy xew-xew yu bari am fii ci Libreville ba mu demee Mayomba yàlla defal ko fa nag daw feex dëgg la tubaab yi ña fa di ko jéem a gàllankoor waaye suñ boom def na ko bu nëbbu leen ba mujj nee ma mel na jant nag fu ma bëggoon a àgg ci yàlla ma fa ba waral muy bind mbind mu siiw moombu di yesarali mun naa ladda Libreville mbaa yesarali mun naa ladda Limberweli ci waxin wolof Libreville nag histoire daa wone ni Cheikh Bamba Xaadim Rasuul moo indi diine lislaam fii ci Gabon bi mu toogee ci réew mi bokk na ci lim njëkk a def mooy woote ca assemblée nationale réew mi député yépp toog mu ni daa bëgg a tracé waat réewum Gabon mu wax ni bi ñuy abolir esclavage booba daa tombé ak ab bato yab lu toll ci ñeent fukki esclave muy ay jaam ak juróom-ñaar biñ ñëwee ba toll ci code gabonais ca Allemagne ñu décidé ci conférence de Berlin ni kenn amatul sañ-sañu jàpp jaam ñu ñëw accosté fii ci débarcadère bii jàkkaarloo ak présidence bi wàcce fa ñeent fukki esclave yooyee ak juróom-ñaar daal di tudde barab bi Libreville loolu mooy askanum Libreville gi nga xam ne mooy réewum Gabon waaye nag soo demee ca barab ba di nga fa fekk ñaari pilon yuñ fa samp muy ñaar yoo xam ni daa mel ni ay béjjën yu dend benn bi mooy symbole mooy symboliser ñeent fukki esclave yooyu ñu fa wàcce woon waaye la waral Libreville am nag muy Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul ma fa wàccoon mooy beneen bant boobee keroog la Libreville di door a am loolee nag su yàlla dogalee ñuy dox ba jamono ji mu yëpp fu ñu nekk ñoom ñëpp kenn ku ci ne ba sëñ Touba nga amoon pas-pas ak yéene topp jaal jaari sëñ Touba waaye sun borom di ko door a dogal salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar